asalaamaaleykum mbokk téléspectateur Ene télévision ATV ginnaaw bu ngeen nuyoo jaajëfal leen bu baax a baax ñu ngi nii nag ci garage Mbour ku wax gàmmu wax transport ñu ñëw xool ñu client yi demee ndax oto manqué na wala manqué wu ndax paas yi na wala see ndax ni ko ministre bi diglee ndax ñu koy doxalee wiiw noonu di dugg ak yéen ci garage bi. Dakaroo dem dëkk yi dañ leen a laal ci transport bi comme ça client yi ñu daan ñëwee ñëwee waaw Dakar dem dëkk moom laal nañ ñu bu baax a baax moom laal nañ ñu bu baax a baax moom loolu moom ñoom ñaxtu nañ ko ba sonn parce que Dakar dem dëkk yi maanaam liñ client yu bëri fii lañ doon dugg see mais boo bëggee dëgg yebee Dakar yebee ay 2000 2000 dem dem Tiwaawan tamit loolu noonu da ngay laal transport bi te ñun dañ ñoo war a jàppale ñun dañoo war a jàppale si transport bi nii dañ see sonn Dakar dem dëkk yi sonal nañ ñu loolu dañ koo a wax Dakar dem dëkk yi sonal nañ ñu trop trop que lu koy que Dakar dem dëkk yi dañuy dem péage dañuy yëg péage yéen est que da ngeen yëg péage waaw parce boo si boo koo si waxul péage du nangoo ginnaaw yi bu ñu ñëwee fii soo si waxul péage bi moom mooy da ngay obligé yab 2500 péage Dakar dem dëkk moom moom carte rek lañ koy jox moom day dem fay péage solul leneen moom lu mu yor carte day dem day rek. moom am na bi waaye xam la oto amul fi tamit dañuy wax lu neex ndax boo ñëwee gis oto yaa ngi carré buñ ne la oto amul ci dëkk waaye nag paas yi moom seer na trop trop trop ndax ñi débuté di dem Medina Baye Kaolack bu la ñu doon yóbbu nañ ko si ñun dem na set ñu tey ñu taxaw si huit mille neuf mille kon daf ñu naan ko léegi dool yi ñu bëri ñu ngi bëgg dem bu dee Tivaouane bu dee Kaolack fu mu mënti doon rek dañoo yokk paas yi loolu moom maa ngi baax ndax moom lañ lañ fekk tamit ñu ngi la koy tamit bu baax baax a baax eh, ñëw fekk paas yi dañoo yéeg wala ni ngeen daan luwee moom lañ moom lañ yokku ci suba daal li bi ñu waroon a yóbbu li njëkkoon a confirmé ak moom cinq mille la woon bu demee ba mu yàgg moom mu am gànt fi ñu booleel wax ñu six mille bu ba mu yàgg ñu wax ñu ne sept mille moo ne garage bi ñëwee garage fekkaat huit mille neuf mille xam ñu ngi yokkee jaaduwul. saa yi ci nekk garage bi si diwaanu bi si si préparé gàmm bi wax dëgg yàlla saa yi ak ni ngeen ñëwee nii wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu quoi. di wax ne yéen def seen liggéey ci askan bi waaye tey imagine tey saa yi ñu soxla leen di leen woo te mënuñu leen a jot. ñu soxla leen ne instant yi ngeen nekk instant ci ñun loolu wax dëgg yàlla dafa rafet te ñu leen koy chaque jour bu débuté kër la am liggéey am solo yi ngay def ci biir ci biir Mbour mën nañu ku wax gàmmu wax wax waawoon wax Kaolack transport bi tey nan la doxee comme ça waaw transport bi moom wax dëgg yàlla métti na méttiwul ndax wax dëgg yàlla instant yi boo xoolee depuis démb ba koy meññ waaw donc ñun instant yi tamit ay coureurs lañ am na ñoo xam ne ay chauffeurs lañ am na ñoo xam ne instant yi tamit ñoo yore instant sécurité bi mais wax dëgg yàlla métti na météo daal ndax benn client moom wax dëgg yàlla soo ñëwee fii dañ la organiser gérer la instant yi tamit waxtaan ak yow instant yi dugal la ci oto ba nga dem te doo mel rek dara. paas nan lay varié woo comme ça gis naa Fata bus ak ay sept places. waaw waaw waaw waaw mais noonu la noonu la noonu la demee ndax lépp lépp rek instant yi tamit maanaam ci euh, gaara président garage bi ci lay démarré si projet projet garage bi ci ci lay dépendre quoi ndax yenn saa yi am na bu dee tata yi dem ba léegi ñu fi doon yóbbee deux mille cinq cent mais bi ñu demee ba ci après guddi gi ñu def trois mille léegi nag instant bi ñu demee ne ba ci suba gi dëgg yàlla instant bi ci trois mille lañ ko téye ba léegi waaw euh, bu dee bus yi nag moom ñu ngi fi doon yóbbee ay quatre mille cinq mille waaw wax daal sept places yi tamit mu ngi demee ay cinq mille six mille wax daal métti na méttiwul daal wax dëgg yàlla non non non non instant yi wax dëgg yàlla moom instant yi mu ngi yéeg ko wàcc ndànk ndànk mais métteetul quoi instant bi comme naa bu njëkk nga xam ne da ngay fay ay sept mille huit mille neuf mille dix mille yooyu moom wax dëgg yàlla amatu ko léegi moom dañ koy xool instant bi ñu dëkk bi ni muy demee rek noonu lañ ko àndee wax dëgg yàlla instant yi demee nii ñoom amuñu accès fii sax daanaka ñoom instant yi amuñu accès fii sax wax dëgg yàlla ñoom amuñu accès fii ci biir daanaka ñi fi doon yeb daf euh, démb ba fi démb rek instant dem ñoo ñoo yeb waaw ministre bi nag ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax wax dëgg yàlla instant yi tamit yu xibaar yu am solo yi muy jàllale wala instant yi tamit maanaam yu ak yeneen yi nga xam ne instant yi dañ koy dugal suñu bopp day tax ñu bàyyi xel ci liggéey bi ba nga xam ne puccaxoog ak werante ak yooyu du ci am daal comme ça lan ngay conseillé yi en tant ak. ak yi moom instant maanaam ñu jéggalaat discipline bi rek instant yii tamit yar bi rek ñu jiital ndax lépp loo mën di doon instant yii tamit yar la bu jiitalee yar bi daw ndànk instant yii dal ndànk instant yii képp képp koo yem ko ne koo yem ko nga waxaale ak moom instant yii tamit ko si jàmm indiwaat ko si jàmm loolu daal instant yii mooy li gën a am solo te loolu la ñu xam ne instant yii moo waral guddi gi li euh, mu daan demee sans événement moom mënut a demee Parce quand on dit que euh, quand l'offre est supérieure à la demande, les prix chutent. Mais nah, quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent. Donc, nous avons fait xamanteni ni ben rush dafa am nit ñi jogando forcément auto forcément hausse des des prix day am mais nous avons bañ aussi ñun ñi fi en tant que responsables, il y a une exagération. que léegi rek am na oto bu taxaw ñëw di woote Tivaouane 5000 dama ne ko doo ko fi yabee parce que yooyu franchement en toute sincérité jaaduwul sax tegul ci yoon mais nag yokk gi moom mënta ñàkk parce que tey aj màkka ñun bu événement aj màkka dañuy yokk mais su événement aj màkka amul tey instant bii nii soo doon dem màkka prix yi ngay fay mooy gën a néew que li ngay fay ci aj màkka c'est parce que

Euh, ndax ndax client yi ni ñu daan ñu koy ñëw ba tey damaa gis euh, ñoo ministre bi ni Dakar dem dëkk yi léegi moom lay utiliser parce que moo gën a moins cher ndax client yi ñu doon ñëwee ci garab ñu koy ñëwee ba waaw mais Dakar dem dëkk yi ñoo gën a yomb mais Dakar dem dëkk yi kañ lañ gën a yomb xanaa gën a yomb bi dem dëkk moomeelu moomeelu la cette place bii dem Mbour Dakar cette place bii dem Mbour Dakar 2000 francs lay yebe cette place daal. bus bi nga xamanteni ni moy yab fi di dem Dakar 1200 la yebé busu Dakar dem dik mu ngi yebé 2000 pendant toute l'année kan kon kon mo ndika a forcé tarif si je ne me trompe pas ñom ñoko ko njëkk def li nga xamni momelo askan la kon kooku la waron gëna yombé tay minicar bi nga xamni mu ngi yeb nguur Dakar même bu amé client tarifam du du 2000 francs donc biisu Dakar Dem Dikk normalement bu ñuy wax gën a yomb gën a yomb dafa waroon gën a yomb ci le reste de l'année mais pas ci événement bi kese bu dee événement rek lay gën a yomb. ci lay gën a yomb événement non du baisser prix day maintenir prix xam nga bu doon day baisser prix day maintenir bi muy def gën a yomb gi foofu la bis bii jógee Dakar di dem Tivaouane pendant toute l'année bisu privé bi. kooku ak ak bu 3000 Dakar dem que 3000 pendant toute l'année pourtant bus bus la donc on peut pas avoir deux poids deux mesures te tey man je pense que ni état protéger les investisseurs mais pas ñëw de concurrence parce que Dakar dem dikk nag quoi qu'on puisse dire suñuy buy suñuy déeb suñuy Dakar la ñu dajale maanaam suñuy impôt pour dem jënd ko.

choc boo fi dégg ana chauffeur ba faatu na ngay dégg xam nga bu doon clients yi ñooy faatu chauffeur bi mu ci sax ñu mën a wax mais chauffeur bay njëkk a kon donc yaakaar naan kenn du kenn du tay direct sa bopp xëy di liggéey dafay ñaan yàlla delluwaat këram dama ni nag ñaari secteurs yi mooy secteurs yi gën a fragile ci ñi koy def te saa bu ñu juumee rek bakkan wat muy chauffeur ak médecine chauffeur bu juumee rek bakkan mun na ceebal

mais métier Donc je suis le secrétaire général de la gare mais je suis di génn di dem